programme mu mel ni itam dellusiwaat nañ seen jotaayu kàggu mag ñi seen jotaayu kàggu mag ñi am mbégte itam euh, dellusiwaat euh, tey dalal ki nga xamante ni yaakaar naa doot ñu leen ko présenté di borom xam-xam di yëngu itam ci wàllum lasaraar waaye itam ci wàllum pajum cosaan ak aada di Cheikh Maulana Baye Ousmane euh, Touré borom kéemtaani secret yi duñ ci sori dañ koy daadi jox kàddu gi Cheikh Maulana Baye Ousmane Touré asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah mbokk jullit mbokk taalibe yi fépp nit mën di nekk si bi ñu ngi beneen yoon di wax allahuma salli ala sayidina muhammadin ilfatixi lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa nasir alxaq bilxaqi walhadi ila siratika almustaqimi wa ala alihi qadri miqdaari alazim ñëw nañ tey nag pour leeral ndaxte wax dëgg yàlla jamono bu nekk rek yunti waxoon isa isa isa ta xayru zamaanu wa xayru maawu si jamono soppeeku nga soppeeku ànd ak moom soppi soppi na ko jamono boobu nag si wàllu jafe-jafey àdduna si li jëm si li nga xamante ni mooy wàllu faj ak li nga xamante ni faj bu ñu ko waxee am na faju zaahir am na faju baatin ndax am na si ñenn ñi nga xamante ni ay affaire lu jëm si wàllum fajum cosaan moom moom la ñuy gën a xamee waaye li ñu jàng xaqiqatan mooy lasraar lasraar boobu nag nga xamante yàlla na mën def na maa farat naa alayhim fi kitaabi min shay'in téere yàlla bi bàyyiwul dara moo waral lépp muy si solution bi ñu am nag tey pour jug satisfaire doomu aadama yi jàppale leen si seen wàllu wér-gu-yaram da ciy dox si wàllu aajay àdduna ci seen wàllu wér-gu-yaram gi nag garab bi nga xamante ni ñun xamee nañ ne ko depuis 2012 ñu koy defar muy garab si faaw joni joni nga xam ne dana traité lu toll ak 70 maladies loolu adduna bi yëpp xam nañ loolu gis nañ publicité yi wax dëgg yàlla mosuñu changé dara loolu nag yàlla mu ngi si defal tawféex ndax yonent bi waxoon ne bépp feebar bu yàlla teg rek am na la koy saafara kon nag saafara bi nga xamante ni ñun am nañ ko si solution doomu aadama yàlla mu ngi si suturaal si garab boobu muy garab si faaw joni joni day faj lu toll juróom-ñaar fukki jàngoro juróom-ñaar fukki jàngoro nag bu ko waxee benn jàngoro sax xalaatu ñaan luñ ko yàlla mu nekk si jëm jëmmi doomu aadama mais comme yàlla moom moo indi programme loolu noonu te lim bind si doomu aadama yi sax xalaxal mawta xayaat kon da gis nga ne doomu aadama bi yàlla dee la njëkk bind si dund kon doomu aadama bi li nga xamante ni war na kaa mën a jëriñ si wàllu wér-gu-yaramam loolu lu koy lu koy dimbale la si àdduna garab yi juróom-ñaar fukki jàngoro yooyu noonu li si gën a sonal doomu aadama yi ñëpp xam nañ ne hémorroïde bi da siy bokk muy ndox siti bi muy jabet muy tension muy coli muy góor bi nga xamante ni am na jafe-jafe si wàllu néew kàttan ak bu mu munti doon hémorroïde nag bu nekkee si nit dafay def ay ballonnement biir bi méttee ki mel noonu loolu nit ñëpp xam nañ ko dafay ballonné si biir bi léegi am ñoo xam ne dafa leen di seere seere bu yàgg léegi nag bu ànd ak ndoxu siti bi wala mu ànd ak coli ndoxu siti mooy coli rek ak diabète ak yooyu noonu ak stress bu bari bi xalaat yu bëri yi dafay dem ba néewal kàttan ku góor ki léegi nag ni muy mën a fesoo léeg-léeg hémorroïde dina mën a fesoo si nit sax mel ni koo xante da nga yor rab parce que léeg-léeg bu la jàppee daf lay waxloo am na ñoo xam ne murid daf leen di waxloo comme ku yor ay rab léeg-léeg am ñoo xam ne dafay tàngal seen seen yaram loolu ndoxu siti bi aussi da koy faral di def parce que émérite ak ndoxu siti daanaka boo xoolee sëriwuñ ay ay xeeti programme ni muy manifesté wu si yaramu doomu aadama mais garab bi képp koo jël mooy di une semaine si kàttanu yàlla ñi ngay xam-xam nañ ko ñi ngay jël am na si ñoo xam ne depuis man 2 ans 3 ans 4 ans maa jëfandikoo di si gis satisfaire kon képp koo te yittewoo na ko rek incha allahu rabbi des na la garab si faaw joni joni Mawlana Cheikh Ousmane Touré borom kéemtaanu secret yi moo koy liggéey depuis 2012 ba tey ñu ngi koy defar yàlla mu ngi siy defal tawféex ah ay ànd ak nag ay ay alxuraan yi ñu koy booleel yoo xamante ni parce que garab bi amul benn effet secondaire parce que matière yi ñu koy defaree léeg mu am yu ñu si affiché lu demee ni mboq bi jar bi jinjeer ay bitikoola ak yooyu laaj ak yooyu loolu mënul lor kenn du ay xas ak ren képp ku ko jël moins de une semaine si kàttanu yàlla bu dee ballottement daf la sonal wala hémorroïde sonal la wala ndox siti bi sonal la wala jabet da ngay gis satisfaire sa yaram bi da ngay gis ne yaa ngi commencé wér daal si gàttal boog wér nag si loxo yàlla la nekk mais yàlla yàlla bay sa tool yàlla moo ne ud'uuni astajib lakum ñaan leen may leen ngeen sant ma dool leen yonente mu ne addu'a wu moom ne ñaan mooy ngànnaa julli moo mais solution bi li si gën a gaaw incha allah rabbi kenn du ko jël mooy di une semaine ci kàttanu yàlla te gisoo changement sa jëmm yi ñi ngi ñaanal ñëpp wér ak tawféex bi asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi muy bunt bi nga xam ni euh, yaakaar naa ñu bëri xamee nañ ko ko muy chifaaw jooni jooni euh, di euh, faj li nga xamante ni itam saafara 70 maladies de ay jàngoro ni mu ko waxee noonu la ñu bëri xamee ko ko waaye tamit ñu bëri xam tey fi mu bokk ci ay kilifaam jaar-jaar yi nga xam ne am na ko ci wàllum li nga xam ne moo di lasaraar la ñu bëri xam ci tamit ni mu ci géejoo xam naa bu waxtaan bi gën a sore sore da ko gën a xam yaakaar naa dootuñu leen ko présenté Cheikh Ousmane Maulana Euh, Baye Ousmane Touré ñu ñëw tuuti ci li nga xamante rek moo di euh, maanaam ci chifa yu jooni jooni balaa ñu koy tëj tuuti euh, foofu ñu bëri dañu xool garab gi ni nga ko waxee amaale ay ay alquran yoo xam dañ ko mooñaale ci biir garab gi ndono la wala njàng la. garab bi de wax dëgg yàlla dañ ci am taarix bu rëy parce que émorite ku nekk xam na ne toogaay bu bëri da koy jox doomu aadama ñun ñii di wax yow 2006 2007 2008 tëral nañ ay at yu bari maanaam ci taarix bi ñu xamee garab bi ñu nekkul loo xamante ni dañ ko jot ci zaahir nii kese parce que jotoon nañu am feebar boobu mu xaw yàgg si ñun yàlla dimbale nañu nag ci ki nga xamante ni moom ci la yàlla jaarale ay mbiram ba mu jàngal ñu garab bi moo tax nekkut loo xamante ni dañ koy toog a jël ko di liggéey garab bi nag wax dëgg yàlla depuis 2012 ba tey xam nga loolu xaw na yàgg képp ku ko jël incha allahu rabbi su fekkee wàllu wér-gu-yaram comme ni ñu la ko waxee ni parce que 70 maladies yooyu ñu leen wax yëpp mënuñu si gis sa bopp amma ay alxuraan yi ñu ko liggéeyee nag loolu baatin la boo xamante ni wax yàlla ko mag ñi moom bu ñu la yaree moom falaa budd mu am ay xam-xam yoo xam dañ la ko baaxee si zahir ak si baatin am na ci ñenn ñi nga xamante ni day jël garab bi sax ne la garab bi suñ ko jëlee au lieu que mu leen di faj kese mais da leen di yàlla su bëggee benn bi dem naan loolu nekkal loolu dal nekk moo tax ay alxuraan yi ñu koy defaree yàlla xam ne ne wallaahi moom kese mun na faj nit te léeg-léeg am na si ñoo xamante ni comme ay alxuraan boo gisee ñi koy insister pour di di ko ci defaale pour di ko ci liggéeyaale am na si ñoo xamante ni hémorroïde du ndox si du jabe du tension bu leen sonal mais léeg-léeg ngelaw leen di dugg garab bi am na ñu koy jël ñoo xam ne bu bi bi métti ku ne xam léeg-léeg mun nga daf lay lor loolu xam nañ ko moo tax garab bi bu ñuy liggéey ay alxuraan ni bu ñu leen di liggéeyal garab bi si wàllu néew kàttan bi yenn ay alxuraan yi ñu koy liggéeyee moom mooy def effet boobu moom mooy fajaale loolu noonu te fekk sax du nekk garab bi garab bi à la mais ay alxuraan yi ñu koy liggéeyee yàlla xam ne ne wallaahi lépp lépp loo xamante nekk na ci biir yaramu doomu aadama rek boo ko jëlee yàlla dala ciy defal tawfiq dafay dafay daf lay dimbale ci ci lu gaaw sax parce que am ñoo xam ne seen feebar du feebaru zahir am ñoo xam ne seen feebar ñam buñ lekk la wala lu demee ngelaw saytaan nekk seen yaram kon garab bi suñ ko jëlee di ko liggéey ay alxuraan yi ci jëmi boppam dafa am baatin boo xamante ni moom moo koy sottil mais zahir bi kese kese rek comme composant yi ñu loolu rek na satisfaire doomu aadama maanaam mun na que xam nañ ne loolu yëpp mbokk yi sifaayu jooni jooni mu nekk garab goo xamante ni sans euh, effet secondaire ni mu leen ko waxee itam yaakaar naa ni euh, leer na tabaarkàlla Cheikh Ousmane Touré yaakaar naa numéro téléphone yaa ngi noonu ci barre écran bi 77 767 51 11 57 11 wala beneen bi 70 485 12 18 77 767 57 11 loolu mooy numéro yi wala beneen bi 70 485 12 18 moo ngi noonu ci baaru écran bi waaye nag adresse bi moo ngi fii ci rond point 38 euh, marché euh, bi nga xamante rek ni euh, jeudi yaakaar naa ne ñu bëri xam nañ ko foofu ba léegi boobu ba léegi foofu nag mooy diwaan bi ñu ñëw ci laaj bi nga xam dama ciy dellu siwaat ndax dañu déggoon ni anti choc nga daagoon di ko wax anti choc waaye tamit mu ñëw miné bi tamit ñëw ñu dégg turu miné bi mu nekk lu bees ci jamono goo xam ni ku ci nekk nga koy dañ kumpa jaaxal na leen ak yow li nga ki tàmbale rek da ko wane rek te commencé koo ci développé anti ak miné bi loolu lan benn la wala dafa am différence waa anti choc ci seytaane bi dañuy def anti choc ci raay seytaane bi xamu jinne yi ak rawxaan yi am na si ñi nga xamante ni anti choc bi ñu leen di liggéeyal ay cuuraay la ñuy defar mais moom it dafay ànd ak ay ay alxuraan amma miina bi si jëm boppam am na fu ñu koy liggéey day nekk ndomba wala mu nekk comme saaru sangat boo xamante dañ ko préparé defaral ko parce que am ñoo xam dañu am problème mu takk waaw am ñoo xamante ni tey ndomba boo leen ko joxee mun na réer mais li nit ki jël sangoo ko si yaramam dafay des si biir yaramam léegi nag antichoc cuuraay seytaane bi am na si ñi nga xamante ni léeg-léeg duñu amul temps toog di takk wala ñuy sangu dafa am ay cuuraay leen di defaral yoo xam ne léeg-léeg cuuraay ku ne xam ne dañ koy suuroo koo xamante ni rab daf la jàpp wala cat nekk si yow wala liggéey nekk si yow ak anandoor anandoor mooy rab rek si góor si jigéen ñëpp la sonal bu fekkee ne jigéen ñi la des fois pare ne saa ñoo xam ne mun na leen a téye sax ñi ñàkk am doom ak yu mel noonu rab baaxut am si ñoo xam ne bu dee góor yi la mun nañu wër téeméeri soxna mun duñu am duñu am duñu amee soxna loolu bu la téyee ci jëm boppam gàllankoor yi muy def ci yow moo bëri léeg mu defal la feebaru naqaru xol ngay toog di merte kenn du la def dara loolu ñëpp xam nañ ne rab dafay faral di def noonu nit te am na ñoo xamante ni seen rab yi ay rabu ndond la da nga koy sa maam da koy yor wala sa papa yor ko wala lenn sañ mbokk muy wër léegi léeg am na ci wax boo demee ci séeréer li moom la ñuy wax ay tuur ak yu mel noonu jinne nag moom la alxuraan déclaré wa maa xalaqtu jinna wal insa illa yàlla nee bind moom nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma kon yàlla boo xoolee ba ci biir fu ñu bind baatu rab ci alxuraan moom kenn mënu ko génne léegi nag jinne bi nga xamante ni tuubut moom la ñuy wax rab jinne yéeféer bi nga xamante ni tuubut moom la ñuy wax rab mais alxuraan jinne la déclaré léegi boo ko defee rab boobu nag saytaane lay faral di doon ci yore mu doomu aadama am na rab yoo xamante ni nag day protéger yore doomu aadama day protéger gudd fan ak yooyu noonu mm-hmm. mais am na yoo xamante ni li ëpp ci rab yi daf lay xel di yàqal mooy faral di def maanaam léeg-léeg ngay toog sa wërsëg bi di tëju léeg-léeg mun a def naqar xol léeg-léeg mun a def ay yaram buy tàng léeg-léeg mun ngaa xëy nii toute la journée doo nekk si jàmm fekk moom mooy téye si fit bi di la def ay xalaat yu bon bu fekkee ne sax da am jëkkër sax mun nga am ama moom jafe-jafe bu dee da am jabarit mun nga ama moom jafe-jafe parce que yu mel noonu yooyu yëpp réaction yëpp moo koy def kon ante choc cuuraay saytaane bi xam bu jinnee ak rawaan yi dafay am lu ñu ciy liggéey loo xam ne ay sangat la am na loo xam ne ay ndomb la dañ koy defar am na loo xamante nit mun na ko jël takk ko am na loo xam ne mun na ko sango mais am na si loo xamante ni cuuraay la loo xamante dañ koy liggéey à part jërëjëf Cheikh Maulana Baye Ousmane euh, Touré borom kéemtaane secret yi euh, ci miine boobu rek euh, xam naa ni balaa ñuy def daanaka benn laaj dese nañu miine boobu dama bëggoon xam ndax jot ci yomb na ndax boo gisee liggéey bi ni nga xam ne moom nga ko liggéeyee da ngay xam ne lii du liggéeyu euh, li ñuy wax kenn du wax sax ni euh, mbirum fo du caaxaan la ñuy wax li ñuy gis nii du caaxaan liggéey dëgg la waaye lasaraar dëgg moo nekk nii ndax luy laaj na concentration euh, laaj na dal laaj na tey ndax xawaatim dafa nekk loo xam ne lu ci damm rek mën naa indi erreur mu bëggoon xam ci lan lay dox ginnaaw si ak coono gi nga xamante ni daj nga ko ci. waaw miine bi de comme ñu leen ko waxee rek comme niñ tënkee woon anti choc ci raay saytaane xam nga jinne ak rawaan moom si loolu lay dox waaye nag gën naa kawe parce que moom dafay antu doomu aadama ci bépp xeetu musiba moo xam cat nekk ci yow wala la saytaan nekk ci yow wala liggéey nekk ci yow wala rab nekk ci yow rawatina nag gaa yi nga xamante ni ñaan moom ñëpp ko yittoo waaye rawatina gaa yi nga xam dañaa nekk Europe parce que tey ji léeg-léeg ñuy jëflanteeg takk der yi foofu ku ne xam na ne boo nekkee lu demee ne Espagne wala Italie wala France wala Angleterre wala États-Unis léeg-léeg pare ni saa yi dugg bee génn bi noonu duy xaw du yomb ci yow surtout boo xamee ne amoo ay papier léegi nag boo ko yoree aussi da lay musal ci àllu accident soog bu nee antichoc rek dèjà tënk na lépp antichoc moo xam liggéey la moo xam cat la moo xam seytaan moo xam dëmm la wala rab yooyu yëpp day nekk loo xam te day gaar doomu aadama te tey boo xoolee tey fi àdduna bi toll surtout Sénégal gi fii tamit aussi mbiri xaw na doy waar tey politicien yaa ngi fii lu nekk mu ngi kàddu bi nekk mu ngi jub te lool it wax dëgg yàlla bu ñu indee miine bi tey solution la te miine bi wax dëgg yàlla euh, gëñ euh, nañ cee def ay publicité sax mais am na ñoo xamante ni wallaahi liggéeyal nañ leen ko at te mosuñu mosuñu génnee xaatim di ko présenté kenn kon miine bi jëm boppam képp koo xam te ni da nga ragal lépp lu jëm ci wàllum takk der surtout nga nekk Europe foofu bañ ku lay yàqal wala nga yor place boo xam te ngay bañ ko fay yàq ak yu mel noonu parce que léeg-léeg am na ñoo xam ni duñ leen yàq si yaram place ba ñuy liggéeyee la ñuy jël di di nga yàq boo yoree kër goo xamante ni aussi parce que fii sànc yi mu ngi dox ku nekk da ngay bëgg di am ay makkaan ak yu mel noonu muy kër soo léeg nga gis kër yoo xamante ni dafay macha allah taaru bay bëgg de mais léeg mu am ay rab ay barab dëkkwaay rab lay doon wala jinneeg yu mel noonu miine bi soo ko amee di ko suul sa kër wala nga koy def sa place wala nga koy sangu wala nga koy takk ba sa biir njaboot daf lay aar maanaam moom dafay def fan bu gudd daf lay aar si côté yu bëri tey léeg-léeg ngay jël ay xeetu bayra yoo xamante ne amoo ay antini yi mooy waral cat di la mujj di dafaat balaa ngay naam na balaa nga naan naam da fay nekk tey ji immeuble lu mu rafet rafet lu mu diis diis fondation bi moom mooy base bi léegi miine bi jëm boppam na tey soo ko jëlee li mu lay protéger mooy lépp loo xamante nar naa ñëw nar laa fànq si loo xam ak loo xamul parce que yàlla moo yor mbir laa xawla wala xuut ko defee soo ko jëlee si jëm boppam daf lay protéger si côté yooyu noonu surtout affaire yi jinne gi mel noonu parce que tey jinne ni xaw naa doy waar ñu bëri dañ foog na jinne da nga war a mën a ñëw toog di jàkkaarloog moom di gisante ak moom face à face non na nekk fa nekk bi mën na fa nekk di xam li ngay def di gis li ngay def parce que yàlla may ne leen pouvoir bu toll noonu kon bu ko defee xam-xam la boo xamante ni dafa rax 100 pour cent mbiru jinne Mm-hmm. ak affaire yi saytaan yooyu ñu leen wax ak affaire rab yooyu noonu parce que tey jii même ñi nga xamante ni dañu yor wàllu dañuy bëgg yittewoo affaire tul mm-hmm. tul su ne xam na ne léegi wax dëgg yàlla adduna bi xaw naa doy waar trop ci jamono bu nekk ngi ngis nga dégg ñu ne rey nañ nit dañ lañ ko rey soit pétal wala jaasi wala paaka yu mel noonu mm-hmm. léeg-léeg anti gis nga accident bi mu mujjee xew jamono bee si ginnaaw wax dëgg yàlla yu mel noonu doy na waar te accident bu bi mu xewee ñu bëri toog nañ génn ne am na ci ay lenn lu ko waral maanaam tey ji am na ñoo xam ne saytaan lañ ko jàppee ba ci bu mujj bi nga xamante ni affaire moo ko waraloon yooyu yëpp saytaane bi nga xamante ni man waxoon naa la ne jinne ci jëmbam la yàlla déclaré mais jinne bi nga xam tuubut yéefar boobu des fois yu ñu xamante ne ay saytaane la ñoom ñoom ñooy faral di def yu mel noonu kon bu ko defee jinne nekkul ne tey jii da ngay mën a nekk dëkk bii rek doo xam fen jinne mën na nekk fu nekk di la gis di la dégg di xam li ngay def moo waral buy def ay xeeti musiba yooyu bu la yàlla dimbalawul nga am ay protection yi léeg-léegi dafay toog a toog rek mën naa laa indil musiba daal kon miine bi tey képp koo xamante ni jël na ko si kàttanu yàlla mbindim gaa yombul mm-hmm. ni ñu koy liggéey yombul mais képp kuñ koy liggéeyal dinañ jël suñu temps liggéey ko bu dee semaine la war a diyee wala bu dee deux semaines dañu ko bind incha allah rabbi képp koo xam ne yittewoo na ko daal incha allah rabbi soo jokk ak ñun suñu numéro téléphone rek dañ la ci jàppale si kàttanu yàlla Euh, Cheikh Baye euh, Maulana euh, Ousmane Touré yaakaar naa borom kéemtaane sa crédit daanaka waxtu bi daanaka mën nañu ne dab nañu waaye tamit ci réew mi rek nga bokk benn actualité ndax taxawaayu par exemple su ma koy xool tey ci Ousmane Sonko noo ko jàngatee yow mi nga xam yaa ngi taxaw ci wàllum lasaraar taxawaayam mbooloo mi yëg-yëg ni ñu ko joxee bopp fu mu tourné ñu topp ko bayra la wala lu mu doon Baye Cheikh Cheikh Ousmane. waaw yàlla de def na innal fadla bi yadillahi yuti man yasha wallahu sul fadl azim yàlla moo koy jox ko ko neex. te it boo amee 30 ans 40 ans ba 50 ans dafa am yenn xeetu pouvoir yu lay ñëwal ci góor bu mun di doon nag moo xam pouvoir boo xamante ni da nga ko doon parce que waxoon nañ ne al ulama warasatul anbiya borom xam-xam ñoo doon yonent yi amaana nag tur bi nga xamante ni tuddee nañ ko ko muy Ousmane Ousmane moom ku ne xam ne si nooree nii. sa turandoo la de. waaw ko xam na ne si nooree nii borom ñaari leer kon bu ko defee yàlla xañ na mën naa am da kaa may leeru zahir ak leeru batin te wax dëgg yàlla Sénégal toll na foo xamante ni am nañ yaakaar si ne ñu mel noonu tey soxla nañ si ay nit ñu bëri waaw moo tax tey jii ñu ngi koy ñaanal tawféex en tant que waxante ni ñun suñu turandoor la xañ na xameel bi demee wut noonu gaa mais tey yàlla mi nga xamante ni tàggan na ay ndaw ñu jub topp ko yal yàlla def tawféex si mbir moomu ki nga xamante ni aussi mooy président bi fi nekk it la kulli haal njuur yàlla qul allahu malikal mulki tuuti mulka man tashaa wa tanzi'ul man mimman tashaa wa tu'izzu man tashaa wa tuzillu man tashaa bi yadikal xayr innaka ala kulli shay'in qadir nguur yàlla moo koy jox ko ko neex su waree jeex dina jeex si heure bi war a jeexee mais mag ñi nga xamante nekk nañ biir Sénégal muy maam borom Touba muy cheikh cheikh l'islam alaaji Ibrahima Niass Baara Delaanu muy maam cheikh maam alaaji Malick si Tiwaawoon ak ñenn seen njaboot baatin yi ñuy liggéey ci biir Sénégal gi gëm naa ne incha allahu rabbi dëkk bi lu mu métti métti métti lu mu tar tar tar ci dal lay mujj. adduna bi yëpp bu ñu jàppoon tey turu Sénégal di ci def yenn mbir yi alaa kulli xaal maa ngi ñoo ngi fi tëdd dara du fi yëngu dara du fi def dara incha allah rabbi kon Ousmane moom ñu ngi koy ñaanal tawféex rek tey képp koo xamante ni lii tombé loon na yow sa tur ak koo mun di ko doon it biir Sénégal gi nga nekk rek te bu génnoon ci parti Macky Sall yi dañuy ñaan yàlla def tawféex su génnee noonu la ñuy demee rek kon bu ko defee ñun ko en tant que ay doomu sëriñ lañ ay doomu borom daara lañ duñ mun di di di xàcc gauche di dem droite ak yu mel ne mais lépp loo xamante ni daal mooy war a mën a indi jàmm ci Sénégal moom lay ñaan bay na nag yàlla da ne comme ni mu la ko waxee innal ko jox ngëneel mënoon naa feeñ ci beneen réew tey bañ a feeñ loolu yàlla moom lay sopp kon bu feeñee biir Sénégal gi nañ ñaan yàlla yàlla def taw feex rek képp koo xamante ni mérito nga incha allahu rabbi 2024 bi a a toog jiite Sénégal yi te yàlla dogaloon loolu ci ësal loolu jàmm munu ci dara ndax comme ni ma la ko waxee yàlla bu bëggee benn bi def naa nekk loolu daal di nekk innama amruhu izaa arada shay'an an yaquula kun fayakun jërëjëf euh, Cheikh euh, wax fa dëgg yàlla li nga développé bari na li nga desal sax moo ëpp la ñu wax euh, jot bi rek moo ñu moo ñu dab te sa jot bariwul tabarkàlla nga war a nekkaat ci yeneen yitte looy tàggatoo waaw ñu ngi tàggatoo rek di wax ne képp koo xamante yitte woon a Baye kun fayakoon bi wala anti chaque cuuraay saytaane bi wala li nga xamante ni mooy miine boobu ñu leen wax nga xam dañ koy def ndomba wala li nga xam ni mooy sifaaw jooni jooni xam ne day faj 70 maladies na si ñu ni war a téléphone ñaan yàlla nag ala kulli xaal nit mun nga ñaan tey mu sotti mun nga ñaan mu def semaine mun nga ñaan mu def weer mun nga ñaan mu def at yàlla Moussa toog na di ñaan yàlla toll ngeen fukki at mais nag léeg-léeg li yonent bi waxoon ak attaani min allaahi wal ajalatu min ashaytaan léeg-léeg nag am na ci ñenn ñi nga xamante dañuy dem ci ay sëriñ bëgg tey te kut ku kut rek incha allah rabbi yàlla faj seen aaju bu fekkee ne dëppoowut ak sa wërsëg ci loolu yàlla da mais képp koo xamante ni daal incha allah rabbi ñun jokkoon ak ñun ci li nga xamante ni mooy antichoc curaay seytaan wala xambu jinne yi wala bayrikun fa yekoon ba wala miina bi wala li nga xam ne mooy garab si faaw joni joni ba si jaari ñi liggéey ak xañ na ñu ngi tënk foofu rek képp koo xam ne yëttewoon affaire yi daal ñu ci te wax wa axiru daxwaana an alhamdulilahi rabbil aalamiin wa salaamu aleykum bi fenn la muy terminus 38 marché Joli ñun ñu ngi dëkk Kaolack Ndofane mais fii lañ nekk Dakar lu ëpp fii la toog ñu ngi rond point 38 marché Joli Guédiawaye bi foofu lañ nekk mbokk yi santaat nañ ko bu baax a baax borom xam-xam waaye tamit euh, euh, borom euh, ki nga xamante ni tam borom sifaawu jooni jooni ñoo xamee ko di Cheikh Maulana Baye Ousmane Touré ni mu leen ko waxee adresse bi borom se kemtaani secret yi mu ngi fii ci Ndakaaru ni mu ko waxee tamit ke Ndoofa Ndoofaan ko waxee waaye tam jamono gi ñuy wax ak yéen mu ngi fii ci diiwaanu Ndakaaru boo ñëwee ba ci rond point arrêt 38 marché jeudi bi daanaka rek yaa ngi ci diiwaanam sorentewul di leen fàttali bi 77 12 euh, di ko santaat bu wa taala doole euh, askan wi waaye sa borom bi di ko ci defal ndam euh, di leen faat rek ci wàllu présentation bi seen mbokku taal la Mouhamadou Lamine Muntaxa yàlla mi borom jàmm teet ku mu jàmmal nga daal am jàmm yàlla na yàlla doole ñu defal jàmm di leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa